fii nag ngay gis mooy kër Serigne Abdou Lahad waaw fii mooy kër Serigne Abdou Lahad mu Serigne Touba waaw mbaar mi kenn kenn yi nga gis yëpp ci nee Serigne Abdou Lahad wéeru na ci waxtaan ci ne ak nit fii mooy kër Serigne Abdou Lahad. waaw bërëb bii de xam naa ni suñu at néew na ci wax ci tuuti waaye liñ ci fekkee ak li nga xam ni dégg nañ ko mag ñi wax ko ci dana ci yomba wax ndax kër gi moo doonoon kër Cheikh Mouhamadoul Moustapha fii la newoon ñu di ko tuddee sanc bi keroog ba Cheikh Moustapha waxee ni euh, day defar jumaa ji. dafa fa kër sañ tubaa gële ci bayti dafa sori woon mu sanc fii dëkk fi ngir liggéeyu jumaa ji fi eh, eh, mën a yomb ci moom nga xam ne dañ koo sëkkul woon ay kàmbal woon ñu sëkk ko Cheikh Mouhamadou Moustapha nekk fi bi mu fi nekkee ngir liggéeyub jumaa ji man koo jege muy bi muy liggéey jumaa ji waaw euh, euh, am na lu soppeeku lu baree baree bare loo xamante ne Serigne Mountakha mi nga xam ne sunu yaakaar soppi na ko mooy ban nga takk masque booy ñëw ak foo ko mën a jëlee masque sax bari na Touba da ngay takk masque to nu nu maye distance bi to ñi nga xam ne ñoo ne ci Touba di teertu gan ñi kër goo dem ci Touba ah ba sunu kër gi moom ak yeneen ñu ngi fa bay gaal goo xamante ni dafa fees del nangami junniy masque bay ndoxum raxasu ci bunt bi nga xam ne gan ñi lu mu bari bari bari bari ñun ñi nga xam ne ñooy teertu gan ñi di leen teral saa boo nee salaamaaleykum rek nu joxoñ la Eh, mband mi nga raxasu nu boo yorul maska nu dindi ci maska yi nga xam ne moom la sëriñ bi jox nu jox ko ci nu dindi ci benn jox la nga takk. waaw loolu noo ngi ci ndax yàlla dafa dogal barab bi moom ku xam na ni fu ñuy saafara wala waaye du fu ñu war a mën a jëlee feebar ndax kon bu fekkente ne ci wàllu civilisé la ku ne daa xam ne dañ ko war a roy ci Daaru Xuddoos ku ne xam ne daa war dañ ko war a roy ci Serigne Cheikh Mbacke mi moom kër gi ci set sell ak jëfe ndigal kon rawatina nag ndigal lii nga xamante ni moom la joxe ak nii nga xamante ni moom la jamono ji feebar bi mel moo waral barab bii mooy barab bi ñu war a siyaaree sëriñ bi nga xam ni dafa dikkagut tey la war a ñëw ci guddi waaye ma ngi ci kërug boppam gi waaye kër sëriñ Mbàkke man na gi dana fi ñëw ci tey su fi dikkee nag barab bii mooy barab bi ñu koy siyaaree euh, ñetti bun ñaari buntu lay doon ñaari bunt yi danañ dugal lu toll ab lim ñu daanante bu ñuy siyaar bu kenn siyaaree ñëw amut joxe la ko toog siyaare danañ fi teg tamit ay euh, defukaayu ndox woo xam ne day ànd ak eau de sel yi tamit am nañ ci lu xaw a takku mi ngi ci biir masque yi bi may wax ak moo tax ma génne woon ko ab lim am nañ ko ci boo xam ni dañ ko bëgg ku ñëw te yoroo masque ñu jox la ko ngir nga jëfe ndigal li nga xam ne moom la sëriñ bi def ak li nga xam ne moom la docteur yi wax fii nga taxaw di wax gisoo fi kenn ci mbaar bi to di daan fees del del del del loolu nag daa tax ñu bari nag dinoo teel a ñëw siyaare si démb ci ajjuma ji ci diggante ajjuma ak ak ak ak gaaw ñu bari dañoo ñëw siyaare si suñ bi na leen nu dellu ñibbi. fii day kër goo xam ni euh, day kër gu yàgg ci cosaan ba ñi fiy dal bari lool ndax su ma juumut euh, boo duggee ci waañ wi rek di nga fi fekk euh, lu mat ñaar fukki kër dëkk yoo xamante ni dëkk bu ne da ñëw dal ci biir kër gi am fi sa barab waaye waañ wi di wenn waaye waañ bi ni mu doon doone wenn danañ ko organiser ba nga xamante ni ku ci sab dal ngay nekk def fa la nga war def ba ñi ñiy taal rek ñëw nekk foofa nga xam ne au ko que ñëpp di groupé ci waañ bi du mën a ne ni ñuy def mooy dañuy tànn ay nit ñoo xam ni dañuy defar le bu dee xolli soble wala lu ñu war a defar lépp ñu defaree ko ca dal ba indi ci waañ bi ñaar ñi nga xam ne ñoo ne ci waañ wi di togg rek ne fi nga xam ne dana wàññi personnel bi ñu soxla ci waañ wi ba tàncaloo bi ñu bëgg dana du am ndenkaane daal moom mooy kenn ku nekk am murit nga te lay doxe ndenkaan li moom sëriñ bi wax na ko bu yàgg awaa weer yu nu door a départ Dakar di ñëw wala nu départ ak dëkk mën a doon ndenkaan moom sëriñ bee ko wax nun itam ñi nga xamante ne eh, ñu mel ni sëriñ si di sama sëriñ ku baax képp fu mu am taalube baatam dem na fa wala ndawam xamal leen ni nu bëgg nu organiser ko magal gi ku ñëw na nga takk maska te nu topp nu respecté distance bi. sàmmante ak àq dëkk bi ba nga xamante ni lépp loo xamante ni rek dara du lislaam lu dul lislaam di su ko fi gis lépp loo xamante ni daa méngoo lislaam kenn du ko fi gis lislaam rek lañ fiy gis gis fi ak bi gis fi ak jullit gu mat sëkk.